Khalifa Sall ya Abba Mbaye ne faa leen di xamal leen ñun Khalifa Sall ci boppam moo ñu wax nañu tekki leen seen ndombal tànk yeew yi ngeen nekk ay député non kon moom fa ñu doon jàppale ak a encouragé waaye tey ñi doon encouragé Sonko naan ko gat sa gat sa ñoom ñëpp fi mu toll ni nekk nañ ay candidat te ñun fañ ko waxoon ko kañ dem dialogue ji waxtaan moo gën xeex bi nga nekkee ma ko waxee ca Vox Populi tribune yéen a na réeroo mag fa calcul politique rek la turbine kaay ne ñi nga xam ne fa ñoo teel a wan ginnaaw bàyyi yeewi askan wi fa mel ni tey ñooñu am nañ dëgg ci seen kaw bu mel ni ñoom buggaan géy danag ñooñu le quotidien yéen kaay na leen man faa waxut loolu faay laajte xana lan moo tax Ousmane Sonko ña ko interné ca hôpital principal boobaag léegi ñetti fan mu mel ni daal moom fañ koo beral loxo te bët bu set fanweeri junne moom la nguur gi di fay ci faj Ousmane Sonko foofa ca hôpital soppi réew mi ci doxalin bu jaarut yoon ba pare suqali ko loolu moo tax moom Ousmane Sonko ak Mamadou Dia ak Thomas Sankara ba nekkoon président Burkina Faso ñoom ñett ñii fa ñoo jëmmal Afrique goo xam ne fa moom seen bopp bañ a sukkandiku ci tubaab yi ñu ñuy nax rek Sud Quotidien ne neenal gi nga xam ne xattekatu si ngeen sor ba fa koo neenal seppi gi ñu seppi Ousmane Sonko ci liste électorale yi gis nga loolu benn xatte la waaye xam ne téeméeri leçon de ku nekk ak nam ko gisee ak lam cay jàngale Sud na ko attekat boobu di Sabassy Faye àllarba bii ca ngeen fas yéen a ca cour d' appel bi ne lu nekk mën naa xew de ndax appel bii fa mën a soppi lépp yéene bi ne faa di wax Ousmane Sonko fi mu toon li ko bloqué ba tax mënta jot ci fichier parrainage am bi mooy li ñuy wax notification attekat ba maanaam kayit buy firndeel lam atte ba tey bés bi yéene fa ñoo xamal ne rappeur bi ñuy wax nit dof dañu jàppoon ko tëj kaso lu toll ci fukki weer ñoo tàmbali grève de la faim maanaam bàyyi lekk ak naan bu fekkee ndakaaru njaay nag moom ka ñuy wax Falla Fleuve ak Mati Sarr Niang ak Aji Ndaw ñoom fañ leen a tëj kaso waaye xanam yañ nekk doomu aadama sax du ca nekk ay jafe-jafe ak i métti la métti député bi ñuy wax sanu mooy liñ ko waxaloon ne moom fa bañ ne du ànd ak député taxawu ya ngir tekki ndombal tànkam ca yeewi moom fa des foofa tey ci les si ko yéen a bi fa ko weddi neen loolu dëgg léegi député taxawu laa te naa sama ndombal tànk ca yeewi askan wa leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Xalifa Sàll moomu fi mu toll ni ci ay nen lay dox de ndax doxalinam fi mu toll ni diggante moom ak yeewi askan wi naka noonu ak benn bokk yaakaar gis-gis ba ca wal fajër yéen e kaay xamal ma ngi ca biir yéen e kaay ba point actu yéen e kaay ne gis ngeen bun Abdallah Jonn mii lu jëm ci élection yi waa benn bokk yaakaar yi fañ koo nar a dugg ba mu réglé l'observateur na ko voilà gis nga candidat benn boobu Amadou Ba man daal faa seetlu na amul liberté daal moom njiitëram moo koy waxloo moo koy noppiloo fa koo jiita rek di xommal rek daal xamul benn sañ la muy wax ak la muy def moom fañ koy digal rek muy def loola nag yéen e kaay bi nee na baaxul ci Amadou Ba ay risque la léegi ana lan moo tax a fépp mu nekk rek fexe dëggal boppam yéenekaay bi ne waaye li ko nar a jaaxal mooy naka lay waxee li doxut ci réew mi te moom mu bokk ci ñi tax loolu doxut ndax ci bilan njiit réew Macky la bokk di su baaxee su bonee ci la bokk Direct News yéenekaay na ko fi mu toll nag mi ngi ci campagne bu métti moom Amadou Ba ndax fay xamal tournée jamono ji ci Ndakaaru Njaay fay seeti kilifa diine kilifa aada yi keneen ku nekk ci campagne parrainage bi mooy Anta Babacar Ngom laas yéenekaay fu ko jàppee yaaw seetal Pape Djibril Fall fa wax ne xam na candidat yoo xam ne ñoom am nañ fukki député ak ñett kon ñoom waruñoo ut parrainage ci askan wi nañ dem seen député yi parrainé leen waaye loolu ñuy def noonu ut parrainage ci askan wi mooy fa ñoo nar a yàqal ñun ñi nga xam ne amuñ ay député askan wi lañ yaakaar buñ bloqué affaire bi nañ ko bàyyi askan wi pare nañu Abdourahmane Diouf moom it candidat la fa ko feelu na ko man de yow xaw kan ngay waxal waaye benn bokk yaakaar moom am nañ député yu bëri mën nañoo parrainé candidat mooy fa ñoo bëgg a yàqal candidat opposition bi ba duñ mën a am parrainage pour bokk te loolu fa ñaaw li rafet nag mooy ni njiitira Macky Sall nar a bàyyee ci wàllu koom-koom suqaliku goo xam ne ba léegi musuñ koo am waxuma ko nag Mamadou Moustapha Ba jëwriñ ji ñu dénk koppar réew mi moo ko wax ca Témoin mooy yéen a kaay la mu ñu wax moom l'évidence yéen a mooy ne Bougane Gueye Dany fi mu ni fa dugal loxam ci bu baax ci xeex wàllu cancer ween tàggat yaram Sénégal fa jàpp Cameroun di ko mbuqi di ko mbuqi kaay feelu leen enquête yéen a kaay dëggal ko le soleil yéen a kaay feddali ko ne suñ gaynde yi mbuqi nañ gayndey Cameroun yi stade yéen a kaay ne jongante bi nag sénégalais yi liñ football faddal xel mu des nag buñ dajee ak ñoom ci coupe d'Afrique bii naka lay demee bés bi yéen a kaay moom fa xamal ne sénégalais yi ndekete gisaguñ dara fi mu ni mburu mi ñuy ndékkee fay waaj a yokk aay doonte waa asko seen yi ña ngay taxaw ci wesu askan wi ak di ca nas ay pexe yéen